alkaati yi bul ko wane par élégance ñaari kilifa yu mag woo nañ ma ne ma wuy dañu gis sa télé bi day wane xeex yi ci mbedd bi ma ne leen man Bougane Gueye aw benn lenn lu may wax ci seen TV nu ñuy liggéeyee bu ngeen soxlaa woo leen Evelyne wala ngeen woo si moo fay ñoom ñoo fa nekk ñooy traité information ah comme noonu nga ko gisee kon defal li la neex ñu nit ñu def lu la neex ma ne leen déet yéen def leen di leen neex man wax naa leen ñi ngeen war a waxal donc li am solo mooy qu'on ne nu détourne pas de l'essentiel nañu wax nit ñi fan mooy boy fan la boy nekk di indi ay jafe-jafe fan la nit ñi nekk di indi ay xeex ak i nangam sangam jubluwuñu ci taal réew mi mais c'est le droit à l'information journaliste bu mënatul informé bu yóbboo mu takk ay bagaasam dem jaayi ndox. mais tey jii on a un gouvernement va t guerre demain vous prévoyez de descendre sur le terrain euh, avec la situation qui prévaut est-ce que tey jii vous pensez à surseoir wala vous tenez coûte que coûte à aller euh, manifester. xam nga euh, euh, bisub dee bu jotee rek bisu dee la. ku dund doo gor. et man li wax. sama waxi démb mooy suma waxi tey fi ñu toll li am solo mooy xeex pour démocratie Sénégal et loolu lu mu laaj rek ku ci ne ci réew mi war na ko cee def parce que ñi dund gënuñu ñu seen bakkan dem ñi dund gënuñu ñi seen bakkan dem tey jii booy bi dee euh, Bignona ak kii ñu rey yëmbal seeni wayjur dañ leen soxla woon et c'est des jeunes à la fleur de l'âge 17 ans 17 ans Tous 20 ans pour l'autre pour lan parce que tout simplement am na ñoo xam ne jóg nañu bëgg nañu seen nguuru gi ñëpp ànd ak ñoom doxale biram yaasin buubu doxale biram euh, may sa tend joor kenn du wax kenn du ŋaang lu nga bëgg loolu la ñi ñi war a def ku bëggul nekk ci mburu meeg suukar gi neel muut keneen ku indi leneen ñu ne la deng de jël ay ay daan teg ko ci sa kaw man je suis préparé et je l'ai dit à maintes reprises qu'ils se le tiennent pour dit nañu préparé kaso yi te xam ne danañu dajale Sénégal yëpp dugal leen ci kaso yi man Bougane depuis mon engagement en 2017 moi je suis. don de soi. non non non je, je veux dire lu ban lu ne def nañ ma ko lu ne loo xalaat rek. loo xalaat def nañu te ji contact yónni inspection wak yónni ay mission d'inspection loo xalaat rek ñu ci parce que li ñu bëgg mooy ma ne leen ok ñëw naa féete naa ki yéen xamuñu ne géej maam góor mu yéen liggéey mii deretu góor moo nekk ma su ma mooy daw ci suma yaram du ma daw du ma raf du ma daay et je dis encore une fois j'invite tous les Sénégalais à faire de même affaire faire de leur a fait don don don de soi pour ñu xam ne réew mi ay nit ñoo ko xeex ba mu yegg si fii donc du ñu tey may ay nit ñoom Macky Sall ak ñi mu àndal Macky Sall et ses sbires ñu ñëw taxaw ne réew mi dañu koy jaarale ci yoon bi ñu bëgg. mais quelqu'un euh, bi nga xamante ne nguuram jeex na c'est son deuxième et dernier mandat. est-ce que ça en vaut la peine tey euh, tournure bi yëpp mbir yi. jël wala y boo jàkkaarloog moom laaj ko ko. xam nga waane moom mënta weesu nettali sa gént nettali sa bu morom moom mi nga xam ne tey ñëpp d'accord nañ ne jeexal na moom moomu tey moom moo agrippé wu ci mbir yi di bëgg liquider ay nit parce que bëggul bëre ak ñoom mais moom si boppam rek moom moo ko xam mais nag damay xamal leen de lay Wade li nit ñi gënoon bëgg foofu te bañ ci yeggee gars yi dañu raak ak moom ba yegg boîte vocal donc tey jii tey jii la mbir yi gën a lu fi nekkoon démb tey jii la fi gën a nekk donc nit ñi tey la ñu gën a déterminé pour jëflante ak moom Macky Sall. moom Macky Sall wax buggaan Gueye am na porte de porte tey ci mbir mi nga xam ne moom lañ njëkkati une affaire de viol finalement trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation non autorisée mu mujjee sax ba ci mort doom mais xam nga euh, Ousmane Sonko dafa am lu mu leen wax de dafa ne mortal combat la man ma gëm ne mortal combat bi moom Macky moo ciy des. moom moo ci des boo dégloo deuxième communication wu Sonko dafa ne je vais y laisser des plumes c'est important. mortal combat moom son résumé. moom mu ne moom mu ne moom moom Ousmane Sonko moom il va y laisser des plumes mortal combat mortal combat ça veut dire tout simplement loo xam ne day wuri ba day dem këng kon moom Macky Sall moom moo ci des parce que xeex bi fi mu nekk nii. loo mën a lu ndaw mën a def lu jeune mën a def lu jeune mën a def kenn du ko sant mag te fi mu nekk nii jeunesse bi ñoo taxaw pour jël réew mi jaarale ko ci yoon bi ñu bëgg xam nga mon frère Sénégal amul problème mu vitesse malheureusement ñi ñu ñi ah ñoom dañuy juum dégg nga fi ñu ne accélérer la cadence xaw ma rythmer la cadence. Mm-hmm. ñu ngi koy waxeeti fast track. bu njëkk bi. accélérer la cadence la cadence xam nga loolu yëpp vitesse la na gaaw parce que jàpp nañ ne yëf yi dafa yéex. après ñu ne fast track fast track mooy yoon bu gaaw bi yépp ci vitesse la amuñu problème mu vitesse ñun problème mu orientation la ñu am maanaam train bi lu mu daw daw daw bu doon deux cent à l'heure du ñu yegg mukk fi ñu jëm parce que ñi ñu jiite amuñu xam-xam xamuñu nu ñuy def ba réew mi ñu soppi ko. on a quatre mille cinq cent milliards de budget xam nga ñaata nit ñoo koy lekk même pas un pour cent de la population même pas un pour cent de la population. on a 153 200 fonctionnaires et décisionnaires ñoom ñooy lekk loolu les 4500 milliards li ci ëpp ci ñoom la jëm waa léegi menuisier bi nag mécanicien bi nag jaaykatu cere bi nag commerçant bi nag baara ñindi bi nag kiy waas jën ci tefes gi nag ñooñu fu ñu leen boole ñooñu kenn considéré wu leen alors ñun notre projet de société c'est de dire de manière très claire que le Sénégalais lambda doit être au centre du dispositif il faut ñu bàyyi leen xel bu fekkee ne bëgg nañu réew mi nekk réew mu normal yëf yi séddale bi normal na mus ngaa mus ngaa dégg réew mu mu indi xeex séddale bi na normal mus ngaa dégg mu indi xeex mais parce que ñi nga gis ñu génn ci mbedd mi ñoom gëm nañu ne ñii nguuru ñoom bokkuñu ci ñiy dawal kat-kat yi di ko teg ci suñu ñaq ñun ñii di liggéey di ñaq di jariñu ñoom ñu nekk ci ker gi lu ñu liggéey ñu waabale ko ñoom ak seeni doom ñooy bulow ñooy nekk ci mbir yi ñooy dëkk ci kër yu baax yi nangam sangam te teguñu ko fenn lu may di sàcc alalu réew mi ñooñu ñooñu ñooñu ñoo am problème. mais vous avez en face de vous également un sourd hmm. qui ne vous entend pas depuis lors. crier mais vous avez en face de vous un sourd boo xamante ne mu mel ni li mbedd mi di wax. yéen li ngeen di waxal waa mbedd mi dégg ko. alors léegi léegi parce yoon bi muy tracé mi ngi ko jël ba léegi. xam nga xam nga xam nga lu tax dina ko dégg. Mm-hmm. dafa amoon yoon bu mu tracé woon lan la waxoon je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. mais loolu mooy doon musiba xam nga quand tu réduis l'opposition à ta plus ex à sa plus simple expression tu fais face au peuple et c'est ce qui est en train de se passer c'est une erreur grotesque. tu sais l'opposition cristallise la colère collective da koy jël dalal ko segg ko di ko jàlle de manière pacifique pour yow président nga ciy jot donc une opposition mais lu baax la alors soo ñàkkee xalaat ñàkk xam-xam ba jàpp ne opposition amul njariñ ne opposition boobu dama leen di réduire à leur plus simple expression mais mooy li xew tey c'est le peuple qui est sorti que loolu la xamoon ba tax mu ne bëggul gis mais moo tax waaw bu bëggul gis lu xonq tey gis na mbooloo gis na nit ñi moo tax tey ay loxoom takk na deret mooy li ko Ousmane ko waxoon cette fois-ci il faut que loxoom takk tey loxoom takk na ay nit dee nañu ci ay manifestations te boo waxee muy Sénégal muy bitim réew lan lañ lay wax ñii xeex lan la ñuy xeex ñu rétablir l'état de droit ñii xeex lan la ñuy xeex. ñu delloo si démocratie ñiy xeex lan la ñuy xeex Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu salfaañe ay droit wam ñu rétablir ko dans ses droits par rapport ak kidnapping enlèvement séquestration récemment bi nga xam ne def nañu ko muy gàcce ci Sénégal alors dafa wax ne day réduire l'opposition à sa plus simple expression go ahead amul problème il va faire face au peuple et c'est ce qui est en train de se passer mais tey jii ba fan la ñu mën a jëm qui arrêtera euh, Macky Sall c'est ma seule question depuis. Euh, mais qu'il qu'il qu'il qu'il comprenne tout simplement que c'est la fin de son régime. exactement moo tax ma ne la euh, wax ju yegg daf moo ko moom. d'aucuns font appel au chefs religieux pour une médiation entre autres est-ce que tey ji mën nañu trouver benn oreille attentive au niveau du chef de l'État. ah bañ ko ba ko nit ñi daan demee di ñaan njëkk musta maye njekk tey jii. gars yi jekk ko mu nangu nangu njekk non Macky Sall Macky Sall romb na. mais tey la donne a changé que tey jii nag. Ah, euh, comme je dis c'est une patate chaude entre ses mains ku ko ci génnee lay ut. non guerrier la guerrier la. jërëjëf del ginnaaw. <laughs> nee nga nee du deltu ginnaaw mais gis nañ déjà manifestation yi mi ngi dégénéré jamono ji ñi ngi ci vingt daanaka euh, léegi couvre-feu bi jot est-ce que tey euh, ban message la askan wi war a mën a jotee ci Bougane Gueye en tant que leader même bu nga xam ne da ngay mën a une politique. alors euh, d'abord moi je di moi je ne suis pas un politicien moi je suis un entrepreneur un entrepreneur mooy ki nga xam ne dafa nekk ci li réew mi di liggéey di jël xaalisam di dugal waaye di bàyyi xel ci luy defar réew mi moi je suis un entrepreneur donc il faut ñu bàyyi xel lool mais j'ai un engagement citoyen man bañ naa ko ba awma parti politique moi j'ai un mouvement citoyen gëm sa bopp est un mouvement gëm sa bopp est une philosophie gëm sa bopp est un état d'esprit pour que nit ñi xam ne am na fi ci réew mi ay nit ñoo xam ne ay gor lañu bëgg nañu réew mi xam nañu liy defar réew mi am nañu yéene ci réew mi te du li réew mi mën mënal def ci seen poste moo leen intéressé waaye ñoom lu ñu mën a def ci réew mi te xaaruñu ci it nguur ñooñu laa dajale Enquête 221. L'information en temps réel, c'est ici et non pas ailleurs. Enquête 221. Le chemin de l'information.